rek la ñuy wax mhm. ak li xalaat wax waaye euh, ku dee ci marché yaa tàgg sa wolof njaay la ou mhm. ci marché yaa tàgg sa bopp waa luy liggéeyam waaye musique lan mooy yitteem nit ñi bëgg ko lan mooy mbégteem fu mu fees waa kooku bëgg nit ñi gisul ñu gis maytul ma ku yor njariñ ba noppi foo ko fekk mën a fatu naa yorul dara maa ko <laughs> kuñ na njariñ la yor foo ko fekk mën a tëju naa fatu naa dama xat dama seere dama nekk ci ay yaf baal ko ba ci kanam baa ko fatu jug dem yorul <laughs> rahmatan lil alamin yërmande ku mu nekk ci yow da jege mbooloo mi ngi jëriñu yónent yi yàlla mos a yónni yëpp yónni ci kenn ne ko tëju ci kenn ne ko ci sab saal ay doom ay doom ba mu ñetti yoon mu ne maa ngi xaar bu bis pénc yàlla fay wax baay jëf kon am na loo xam ne ala kulli xaalin am lu wax ji bari bari bari bari bari ci Omaro su àndatu woon ak jëf responsabilité yi ak fonction yi ak taxawaay yi moom ci président du ko am waaye nag wax ji lay jëf ji da ko ëpp amaana nag du lépp la ñu mën a gis waaye man xam naa ne man président mi may seetaan nit xam na ni loo ma da jëf ëpp lu muy wax loolu nag day waral fonction bu ne ak responsabilité bu ne mën ko ko am ci liggéey bi parce que xam nga li la war te yaa nga ca ba tax na dañ koy ñaan rek tournée internationale bi nga xam ne ñu ngi koy préparé war a dem diggante Hollande Allemagne Portugal ah Suisse Belgique France Bil euh, France Paris ak Espagne Bilbao Italie le 22 ak ADB yi yàlla ci yàlla def sutura def ci ndam def ci barke ba ñu dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm incha allah ku ne gis na barke Demba Ndiaye rek bu ñu demee Allemagne ci festival bu mag bi nga xam ne euh, tubaab yee ko organisé invité ci président ñu dem teew ci ay nasaraan ñoo nekkoon ci ginnaawam di ko malaxal di ko musigal salle bi ñu toog it bu ne saalu 2000 places 1800 personnes yi ay sénégalais lañ. yeneen 200 personnes yi ngi génne gis ci ay africain ak ay sénégalais ak yeneen i xeet wax dëgg yàlla kon loolu mi ngi wane ne liggéey bi mi ngi évolué wu musique bi it mi ngi dox kon moom dañ koy ñaanal studio de répétition yeeg studio d'enregistrement yeeg soirée yeeg li mu ci man a doon benn objectif lam mooy drapeau Sénégal bi jug ca kaw ndax mooy ambassadeur de la musique sénégalaise c'est le king of the king le roi de la musique américaine sa majesté président son excellence kon li ñu ko ñaanal rek mooy li nga xam ne yéene na ko ci musique bi te bëgg muy téye drapeau bi wasaare ko à travers le monde Sénégal gépp ak àddina gépp mën a bàyyi xel musique Sénégal yàlla ko ci yàlla defal ndam ak tawféex li ki des danañ amaat yeneen jotaay. danañ ko wéyale incha allah ñu ngi wax ne image Wally Seck dafa late yow lan nga siy wax. waaw mais ñooñu li ñu bëgg a wax rek la ñuy wax ak lu ñu xalaat a wax waaye eh, ku dee ci marché yaa tàgg sa bopp waxee wolof Njaay la bien ku dee ci marché yaa sa bopp waa luy liggéeyam waaye. music lan mooy yitteem nit ñi bëgg ko lan mooy mbégteem fu mu mu fees waaw kooku bëgg nit ñi gisoo ku ñu gis maytul ma ku yor njariñ ba noppi foo ko fekk mu ne fatu naa yorul dara maa la ko wax man kuñ la njariñ la yor foo ko fekk mën a tëju naa dama xat dama seere dama nekk ci ay yëf baa ma ko ci kanam baa ko fatu jug dem yorul rahmatan lil alamina yërmande ku mu nekk ci yow da ngay jege mbooloo mi ngi jariñoo ko yónent yi yàlla mos a yónni yëpp yónni wu ci kenn ne ko tëju ci néeg yónni wu ci kenn ko yemal ci sab saal au contraire da leen ni yéen ba noppi digleel diggal leen ñu gàddaayee dëkk ba ñu nekk tàbbi ci yeneen dëkk ngir jariñ ak passé li nga xam ne mooy message bi nga xam ne mooy la message de jë kon nag président li ko war mooy di génn di dem ci marché yi di génn di dem ci foyer yi di génn di dem ci restaurant yeeg salon de coiffure yi di génn dem ci école yeeg mbootaay doomi aadama yi parce que loolu la ko yàlla nattoo ci àddinaam ñi yàlla nattoo ñu war a xëy di làkkatu ak di daw a ko tëju ñu ngi koy def de parce que nag tubarkàlla macha allah am na tey loo xam ne bu ko doon liggéey tey du bëgg ko gis de am na loo xam ne tey bu ko liggéey ci dëkk bii wala mu ko doon def dana tal leneen lu dul ku ko filmer ak ku ko gis ndokk yàlla nag ba mu nekkee ci njub ak mbaax sutura ak teraanga ba daw kenn làkkatuwul kenn ku bëgg filmer ñool filmer ku bëgg vidéo ñool vidéo ku bëgg interview ñool interview parce que li ngay yëngu moo ko li ngay jaay moo lay jaay su ma bàyyi Alioune Kassé ko wayoon en 1994 muy caabi bi li ngay jaay moo lay jaay vive la musique sénégalaise jërë ngeen ah mon fils mais comment tu vas mes bien baa yaa ci jàmm ah. ndokkale ndokkale je suis content je ci si kon. jërëjëf jërëjëf yaa ko moom bay. dëgg la yaa ko moom bay. nit loolu amul lu bésam tey ci àddina am. lu dul man lii la am ci àddina lii la am am lii la am te liggéeyu suñu borom yàlla may li nga am yàlla na ko wax diglewul alal bi dinaa la may diglewul ne di nga gudd fan diglewul ne dinaa la may doom su ma yàlla may ay seex nga teew ci dama ciy sant suñu borom sant yàlla jërëjëf gërëm yàlla yàlla jërëjëf sa bés bi rek mooy sama bés sama àdduna bés bi laa am ci àdduna mm-hmm. bés bi rek laa am ci àdduna ku nekk sa bés da bés bi mooy sama lépp ci mm-hmm. àdduna mm-hmm. du ma ci mer du ma ci xuloo ma ci def lenn tey lu ma doon def nit ci lu bon wala lu lépp ci àdduna bés bi tey dina tax ma bàyyi lépp ci àdduna kontaan naa yàlla na yàlla jërëjëf li nga def ni la kilifa def li nga def ni la nawle def yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla boo taxaw dara jaay ci naam loolu mosoo def ci àdduna loolu mosoo na wax ci àdduna maa ngi jéggul parce que bés bi rey nga ma gàcceel nga ma jàng nga ma àddina li mooy àddina yal na yàlla sutura yal na yàlla kontaan naa loolu suma rakk nga suma xarit loolu yal na yàlla ko li mosoo ma def dara te doo ma def dara amal jàmm jaay ko bismillah bismillah jël ngeen jëf Thank you. Si on Si moo. war na wutina ay seen. ah li li mbégteeg lañuy lañuy lañuy lañuy wax rek santaat gën yàlla. police moom sama xarit la man moom du moo tax ba lii amee. dañoo gën a santaat yàlla quoi xam na ni seex yàlla euh, yàlla du ko jox ku ne dañuy yaakaar ne police dafa doxal dafa affaire mais yàlla dañoo dañoo dafa gën a firndeel nii yàlla dafa ànd ak police ndax ay seex yàlla da ko jox n'importe te nag ñoo war a ñoo tudd suñu doom suñuy seex góor ak jigéen moo loolu gis nga yàlla def li li li gën sax la def xale bi ñu ngi fi ñu ngi si clinique lañ nekk di ba léegi génnagul ndax mu ñu mun ñoo ko mu ñoo mun ñoo ko bàyyi suñ suñ soxna si quoi. gis nga moo tax. ñu simplal ko quoi. waaw ñu simplal ko quoi defal ko simple rek. Ah, ah. en tant que xarit day sa doomu ndey indi ay seex boo ko gisee xam ne Pawlish kontaan na yan message nga koy gën a dénk ndax doom nag dafa sax si xol sax ah, gën a gën a góorgóorlu rek gën a góorgóorlu xam na ni te léegi doonatul Pawlish avant léegi. dugg na léegi su ma waxee sax dugg na cour de naa gën a gën a dugg cour bu duggoon na gën a dugg cour de grand ndax kilifa la léegi mm. yor na soxna yor ñaari yor yor ñaari doom yàlla defal na ay seex te seex yàlla euh, te yàlla dox di jox seex n'importe qui di ko joxee rek xam ne yàlla gën a gën a yokk dayom gën na yokk darajam gën a yokk dayom gars yi gën kaa bàyyi gars yi gën kaa war a gën a bàyyi bàyyiwaat xel waaw macha allah jërëjëf mon frère ok merci kontaan naa si